yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na maa min muslimin amul benn jullit boo xam ni rek yagrisu garsan mi ngi euh, jëmbat garab illa kaana maa ukila minhu lahu sadaqa lu dul képp ku lekk ca garab googa mu am ci tuyaab xoolal garab yeesaa mën na fee des trente ans wala vingt ans wala quarante wala déet di meññ rek at bu jot mu meññ da ngay watt muy meññaat garab googu ku ca ku ca keru ku ca lekk ku ca jariñu nga am ci tuyaaba te loo def jël garab jëmbat ak a simple mais ak bëri tuyaaba nit ki nag bu koy def na am yéene ni lii may def kat d'accord mën naa ci am yéene jariñe ci jariñu ci àdduna waaye tamit nag naa ci bàyyiwaale xel jariñu àllaaxira ndax nit ñi mën cee jël loolu am solo la jëmbat garab nit dox ba sonn ñëw kerlu ci xamoo ko sax ñu bindal la ci tuyaab ëllëg yowmal qiyaam ñuy ibbi sa sa kii di di xool jëla tuddal yoo xam ne yow yëgoo ko woon sax yëgoo ko woon sax ci say tuyaab loolu kenn ku nekk soxla na ko amul kenn encore koo xam ni dina wàññi lenn ci euh, loolu mu jëmbatoon comme ni muy amee lenn ci ñoo xam ne koo xam ne day sàcc ci li mu jëmbatoon wala ci meññet ba nee na du am kenn koo xam tamit mi ngi faagaagal lenn ci lam jëmbatoon moo xam garab ga da ko rey moo xam daf ko wàññi yem jëmbat lu dul mu nekk sarax encore ca ma kon li nga li nga li jëmbat des na fi am na luñ ca sàcc am na euh, luñ ca wàññi wala luñ ca faagaagal teewul lu mu ci mënti doon tuyaa ba nga ci am yow yow mi nga xam yaa ko jëmbat loolu moo tax yonte bi sallallahu alayhi wa daana wax naan même boo demee sax ba nga xam ni tey leer na la ni yow a àdduna mi ngi nii di tukki te nga mën a am benn garab boo mën a jëmbat jëmbat ko bala àdduna tukki loolu loo cay déggee njariñ bu mu moo tax nit ki wut du xalaat rek toujours sa intérêt personnel mais del xalaat intérêt général te yonte ba mu ko doon wax ci ma la ko doon wax tàndarama ku ko xam xam nga ni boo ko jëmbatee du rey du ren du déwan ngay day yàgg nga doogay tàmbali ci jariñ Euh, bul ni man daal lii man kan duma ko fekkee nëgal ma déedéet ci beneen riwaaye beneen xadis bu jaabir ibn abdullah mu ni amul benn jullit boo xam ni mi ngi jëmbat ab garab nit ñëw lekk ca garab ga wala ab bàyyi ma ñëw lekk ca garab ba wala ab picc wala pitax wala yuy naaw ñëw lekk ca garab ga lu dul mu nekk tuyaaba ëllëg yowmal qiyaam bu ko borom bi subhaanahu wa taala di rek kon ku mënti doon ku ci mën a lekk ci mbindeef yi moo xam nit la moo xam jinne la moo xam bàyyima la moo xam njanaaw la lu mu doon garab googu nga jëmbat yi xam ne yaa ko jëmbat yow ci sa loxo ku ca jariñu rek da am tuyaaba bi xoola nga kii picc mi ñëw tàgg ci nga am ci tuyaaba lëppaa lëpp bi ñëw muucu ci nga am ci tuyaaba nag bi wala xar bi wala giléem gi ñëw lekk ci xob bi nga am ci tuyaaba nit ñëw wott ca euh, furu wi ba nga am ci tuyaaba keneen ñëw toog ca ker ga nga am ci tuyaaba te du nekk tey rek de tey def nañ ko nga am ci tuyaaba ñu def ko biir semaine bi nga am ci tuyaaba ci weer wi nga am ci tuyaaba at bi nga am ci tuyaaba garab gi ñaata at la fi def ban ko kiiwee léegi ñaata la ñu ne ah yaakaar naa ni ba ko fi bàyyi defee léegi war naa mat fanweeri at de fanweeri at nga jël trois cent soixante cinq jours multiplier ko par par trente ñaata la képp xamul nu mu toll. loolu bëcc bu ci nekk nga multiplier ko minimum rek par dix parce que benn tuyaaba bu nekk da nga koy multiplier par dix loolu mooy minimum te mën na àgg sa ila sabiina daaf mën na àgg ba soixante dix. kon gis nga li ngay mën a def lu tuuti tey jëmbët bi benn garab boo xam ne même bu la boo dem soo ñu may la ko wala cent nga jënd ko ñëw jëmbat jëmbat bi du du mat ci yow deux minutes trois minutes xoolal lim la jural kenn xamul noonu